asalaamaaleykum suñu mbokk téléspectateurs yi man Fatou Cissokho maa dellu si waat fii ci seen émission euh, dynastie de la mode ñu ñëwoon tey fii ci Médina set si bi un jeune un jeune cordonnier ku mën liggéeyam ñu ñoo fekk si ko place ñëw waxtaan ak moom. ñu ngeen def. alhamdulilah. salaamaaleykum sëñ bi. salaamaaleykum suñu mbokk téléspectateurs yi man Fatou Sakho maa leen di présenter seen émission seen émission dynastie de la mode tey dañoo ñëwoon fii ci medina seet si suñu frère Alou pour mu won ñu liggéeyam ñu xool ak événement yi comme que ñu ngi jëm si ci tabaski ñu xool seen yëngu-yëngu ci liggéey bi bu baax alo nuyu nañ la. baax a baax ñu ngi jox nag sa wàccuwaay bu baax a baax di la nag li ngeen def rafet na parce que lii day tax day jàppale bépp jeune coordinateur boo xamante ne da nekk ci waar bi quoi waaw parce que yàgg nañ ci liggéey bi nag waaw def nañ def nañ ci douze ans. sant yi def nañ si 12 ans mais lu mel nii nii nii moom pour la première fois dëgg fa yàlla ma koy doog am nag quoi jaar na nag ak léegi mag awma ma woon loolu mais lii moom xëy na nag yàlla tey fii la ko tuddee woon quoi ci mbaar bii nii waaw maa ngi si métier bi def naa ci 12 ans nii instant yi nii mais lii moom lii moom ñu tiimale ma nii microni may wax ci liggéey bi pour la première fois la moom wax dëgg fa yàlla. kon niñ ko déggandoowee Allô un jeune nekk Médina nee na def na ci 12 ans ci liggéey bi te incha allah ñaan nañ yàlla mu nekk complexe bu mag Allô liggéey bi yan contrainte nga ciy am parfois ay jafe-jafe est-ce que di nga ciy am jafe-jafe léeg-léeg. bi moom des fois di nga am ay jafe-jafe bi mooy maanaam comme lan des fois nit mun na la commandé daal nga liggéeyal ko ba pare xam nga mu daw loola des fois jafe-jafe yooyu rek nga ci am. des fois nag mun nga dajante koo xamante ne yow mii borom liggéey bi sax yow yaa koy amel yow mii mais loolu bëriwul li borom liggéey bi di ameel client bi loolu bëriwul tout le temps client yi lu ci bëri ñooy amel liggéeykat yi parce que nit mun na ñëw commander la dix paires ngeen waxaale comme maanaam prix bi nekk trente mille mu jox la dix mille mu war a jël si dàllaam bu ñuy indil la beneen débat nga jox ko dàllaam après nga nekk loolu di ci daw après ni mu la koy fayee sax. du la mais dangay jël mais ñun tout le temps dañuy jàppee ni suñu bopp ñun jeune lañ ñun demaguñ fenn parce que ñun maak sama frère bi dañoo tarbiyu ci liggéey bi nag dañ jàng métier dix ans dañoo tarbiyu liggéey bi dañ ci dañ ci def dix ans dix ans dañoo dem mille 2008 ba mille 2018 dañ ko jàng métier di wàcc di am 1000 francs di wàcc di am 5000 des fois ñu am mille di jaayante nag ak liggéey bi dañ ko bëgg nag waaw liggéey bi moom wa dëgg fa neex yàlla dañ ko bëgg te ci lañ yaakaar man maak sama frère bi ci lañ ya si la ñuy yaakaar am ëllëg ay immeuble ak ay oto yaakaaruñ ko leneen lu dul si liggéey bi parce que dañ ko gëm parce que jamono ñuy nekk di atelier di jàng métier comme moment yi événement dañ doon liggéey suñuy patron wàcc ay deux heures di matin ñëw aj suñu matelas aj ko toog di liggéey ci néeg bi ba cinq heures du matin wala ba huit heures des fois si suba dañuy nelaw une heure jot ku si nekk dem liggéey moom ñu sama frère la maa ko dugal si liggéey bi ñun suñu mbokk ñoo ñu jàngal métier Mbaye Sylla moo ma jàngal métier ñëpp xam nañ ko doomu Paa Nogay Sylla la ñëpp ko xam moo ma jàngal métier ñun nag métier bi suñu deret la tëbuñu ñu rek tëbuñu rek ñun dugg si métier bi. parce que métier bi ñun sunu maam da ko doon liggéey rawatina nag ñu ñëw ñu jàng jàngee métier si sunuy famille kon liggéey bi ñun dañuy doog a door parce que man mii di wax ak yow ba ma ci commencé ba léegi bi ma commencé demal sama bopp un na et presque ci la yam kii mi ngi doog a boppam da doon nekk ci atelier di wàcc ñu kii ba ñu tijjee mbaar bii nii mois de mars fii lañ fi commencé te ñaan nañ yàlla nag. bës boo leen di ñëwaat mbaar bi nag ngeen ñu fekk ñaan nañ yàlla déwén bu soobee yàlla heure bi boo fi ñëw dañuy ñaan yàlla mu fekk ñu ci leneen lu gën a yaatu lii parce que gëm nañ suñu bopp te bëgg nañ liggéey bi amuñu leneen nag lu dul liggéey bi koñ bi ñëpp fii mun nañu seede fajar la ñuy xëy takk jóg ñëw liggéey guddee wàcc dem nelaw tuuti amaguñ si nag dara mais ñi ngi siy sant wa dëgg fa neex yàlla amaguñ ci dara dara dara dara mais ñi ngi sant nag bu baax a baax parce que soxla bépp soxla bu ñu am liggéey bi mun nañu ko fajal bépp soxla nag bu ñu mun di am liggéey bi mën nañu ko fajal xanaa rek dañuy ñaan yàlla rek ñu gën ñu jàppale te jàppale bi weesul mooy nga bëgg liggéey bi parce que man mii di wax ak yow nii ak kii nii sama frère bi amuñu ñun koo xamante ne mën nañu seconde yëkkatiñu yëkkati benn deux cent mille nee ñu dem leen liggéey déedéet tout le temps ñun ñooy démarrer ak ñun suñu fond bopp moo xam cinquante mille la moo xam trente mille yàlla nag mi ngi ñuy defal xéwal mooy nit ñi bëgg nañ suñu yëf waaw yàlla mi ngi ñuy defar sutura boobu. foofu sax laa di la laaj yan genre client ngeen ni am. ay client yuy yuy jaayaat yi ngeen ni gën a am daal yan genre client ngeen ni gën a am. parce que métier bii nii booy ñaan rek da ngay ñaan yàlla di dajante client bi lay jëndal en parce que benn benn boo koy xaar doo liggéey ñun at bi yëpp mun nañ ne dañuy liggéey xaaruñu événement pour liggéey xaaruñu bàyyi ba koor wala tabaski pour mën a liggéey ñun ci man man man man man mi di wax ak yow. si man après événement laa gën a mën a liggéey parce que événement nii coono gi moo ciy nekk dëgg la di nga si am dara li nga si am mooy li ngay jëndaatee matériel mais après événement nga gën a mën a toog concentré wu ci liggéey bi nga gën a mën a créer fu mu toll nii nii nit bu la commandé woon deux cent paires nee la yeneen modèle mais bu avénement jàllee ci nga gën a mën a liggéey sa bopp bi ci lay gën a mën a yaatu parce que ñun atelier bu ñu jàngee métier ñun dañu dañu teg si yoon mbay sekk moom ma jàngal métier te wa dëgg fa neex yàlla daf maa jàngal métier daf maa jàngal métier mënu ma ci nag lu bëri mais man yaakaar naa ne lu ma tiim war naa ko mën a liggéey parce que tout le temps dafa ma doon wax alu concentré wul sa liggéey bi te boo mënul dagg mesure moo noo nekk urée te urée nag bëri nañ torop urée moom wa dëgg fa yàlla bëri na torop am na urée chinois urée sax am na ci am na urée yoo xamante ne dañoo tuddee seen bopp urée mais ñu urée parce que am na yenn dàll yoo xamante ne man tey jii su ma ko noree jaay ma bàyyi liggéey bi am na ñoo xamante ne nag ñoom ñu ngi siy gis seen bopp parce que léegi dàll dafa dem ba beneen niveau boo xamante ne ku ci mënul dagg mesure doo liggéey man dàllu góor yàgguma ci dàllu jigéen laa jàngoon dama ko arrêté sama frère bii mooy liggéey dàllu jigéen suñ ma commandé woon 1000 dàllu jigéen moom laa koy jox moom suñ ko commandé woon 1000 dàllu góor man la koy jox yàlla def na nag. maa ngi moom dañoo déggoo nag ci liggéey bi waaw ñoo bokk benn dret man benn rax laa muy moom métier bi tey jii yàlla ak man la maa ko ci dugal moom mi ngi woon beneen métier mais bi ma gisee ci métier bii métier noobal la wa dëgg fa neex yàlla métier bii nii métier uude métier noobal la te lépp lu ci waay bëgg soo ko gëmee nag respecté liggéey bi di ko am soo ko gëmee respecté liggéey bi di nga ko am waaw ñun lenn rek lañuy ñaan ñaan ñaan ñaan ñaan chaque jour ñun dañuy toog ñun ñaar di ko ñaxtu ne ñun amuñu mag ju ñu jàppale dañ koy wax ñëpp dégguñu amuñu papa ju ñu jàppale ñun ñooy jàppale suñu bopp gën a gëm suñu bopp gëmuñu leneen lu dul liggéey bi man ci liggéey bi ci laa amee li ma bëgg gum am pour l'instant bi may takk soxna ci liggéey bi laa ko liggéey bi may ceetal ci liggéey bi laa ko liggéey bi may ngénte lépp ba fi ma nekk di fay location sax ngén lii moo tax ma koy fay liggéey bi kon liggéey bi dama ko respecté dama ko bëgg bëgg naa ko te bëggeewu ma ci nag samay client ku ku ma ci dégg di nga xam ne alu lim alu li mu wax dëgg la parce que ñun xaalis taxuñoo jug ñun bu ñu xaalis taxoon jug bi ñuy jàng métier bañ defee cinq ans dañuy arrêté. waaw relation moo ko dàq ñun dañoo toog dund atelier ñun dañ ko dund dañoo dund atelier dund dund dund ko carrément li apprenti di def ñun dañ ko dund man dama doon jógee Médina bi xëy Maris teel a ñëw bale fobeere ubbi place dem jëli añ kasoor ñëw ñu yónni ma marché ma dem ñëwaat tey jii loolu ma doon def yëpp maa ngi mel ni defuma ko te moom la ma yàlla fay te rythme boobu laa tàmm ba tey te su ma neexoon ne man maa ngi demal sama bopp mun naa tëdd nelaw ba 9 heures mais billaahi ba ma nekkee ci urée bi ba léegi sama patron mun na ma seede ci loolu 8 heures fu mu jotee tijji naa atelier parce que dafa nekk loo xamante ni lu ñu gëm la. te dañ si séentu maanaam lu bëri bëri bëri bëri bëri bëri dañ ko si séentu te yaakaar yaakaaruñu ko nag leneen lu dul liggéey bi moo tax liggéey bi ñu dañ ko jox respect parce que liggéey bi ku ko fonk ku ko fonk rek mu fonk la soo ko fonkee dina la teral dimbali la ba nit ñu ku la gis yaakaar na yow ci bureau ngay liggéey wala yaakaar na yow feneen ngay liggéey ñun liggéey bi loolu la ñuy ñaan yàlla dañuy ñaan yàlla ñaanuñu yàlla nag parce que nit ku nekk am nga droit ne yow yaa dàq liggéey senegal ñun daaxuñu liggéey senegal mais dañuy ñaan yàlla bokk ci ndaw ñi nga xamante ne ñi gën a gëm ci liggéey bi même bu ñu mënul dara parce que gëm-gëm moo gëm-gëm day yokk fit parce que lu waay gëmul doo ci tedd ñun dañ doon liggéey muy taw ñuy liggéey suñu ëttu kër muy taw di liggéey muy wis di liggéey ngelaw am ñu toog di liggéey ëtt bi sedd guy ñu toog di liggéey ñun fii nii dañ ko jàppee nii fii ñun toogaguñ liggéey fii dañ ko jàppee ni dañuy xëy ñëw fii def lu ñuy def mais suñu vision yàlla sedd na na ëpp na lii. lii lañu soxla woon ku gëm boppam. ku nangoo liggéey di xëy fajar di guddee tëdd lépp ngir ñakk jariñu ak loo yóbbu kër ga lii lañu soxla nag Sénégal ay xale yu gëm seen bopp ay xale yu bëgg li ñuy def loolu lañu soxla alu tey ñu xool ci modèle yi mujjee génn ci yi nga nekk waaw yi moom mujjee génnee parce que ñun yàlla may nañu ci liggéey bi benn du ma nee bayre la daanako nu ñu liggéey nit ñi bëgg ko fii dañ ko wékkoon ay dàll ba mu fees mais instant yi nii mënuñu am cinq paires bu ñu wékk parce que lépp lu ñuy liggéey rek ay commande la lépp nag lu ñuy liggéey nii instant yi nii ay commande la cinq paires semaine bii di ñëw dugg guñ si te yàlla nañ si dugg ak jàmm ak salaam jeexal nañ ko te dugg guñ si ci ay commande jàmbur yoo xamante ne dafa jiitu fii wékkoon nañ fi plus de deux cent paires mais yàlla def na ci sutura ba daal lay yàggu fi ay nit ñoo ko ñëw gis ko bëgg ko ramassé ko. kon allo temps yaa ngi ak moom. kon temps yaa ngi ak moom. non maanaam. fi dëkk bi toll li gars yi di wax ak corona bi ni waaw yow loolu sax noo ko dundee. dund naa ci moment yu tar. man dund naa ci moment yu tar parce que man damaa jóge si xew janvier. damaa jóge si xew janvier février ñëw tegu sama kaw yàlla dimbali ma février bi ma karangaatu tuuti mois de mars mi nag ma dund ci lu saf ma dund ci nag lu saf saf saf saf saf saf mais deew ma nag si kenn di ko joytu ma jaayante ko rek toog ak sama ngor xam na ne liggéey bi yaa mun a banque deux jours mais yaa mun a neex la deux mois waaw liggéey bi noonu la bindoo mun nga toog cinq jours yoo xamante ne cent franc doo ko yor mais mun nga toog deux mois yoo xamante ne doon na ma dara dëgg fa neex yàlla mun nga toog deux mois yoo xamante ne saa yoo xëyee di nga am loo lekk di nga am loo naan dinga am loo jëndee tubéy di nga am loo jëndee daal liggéey bi moo bindee noonu tey dama lay jox preuve tey bi may xëy xëyaaluma xaalis mais maa ngi toogaale xaalis ni am na avance yu dugg daal. am na avance yu dugg te pourtant bi may xëy sama paasu taxi rek laa xëyaale sama matériel bi mooy waroon liggéey mat na mais liggéey bi moo nekk loo xamante ne parce que lépp ci lan nag soo ko gëmee bëgg ko soo ko gëmee bëgg ko xaalis bi ñun gisaguñ ko léegi dañ ciy nekk nii fàcc suñuy soxla dimbali itam. suñuy waajur mais du xaalis ñun bu ñuy garder parce que ñun soxlooguñ ko ku mun a muñ toog dix ans atelier war nga mun a muñaat toogaat yeneen at yoo xamante ne pour préparer waat sa bopp parce que ñun si loolu lañ toll moo tax ñun amuñu benn client boo xam dañ lay teg pressing mun nañ fi rangale cinquante paires ñu jox la cinquante per yi ne damal jaay boo jaay indil ñu suñu xaalis. ñun loolu dañ koy liggéey yàlla nag dimbali nañu may nañu ay nit yu nga xamante ne ñu nekk ñun ñu nekk ay jeunes ñu ñuy jàppale ci liggéey bi dañu indil seeni commande du ñu dimbali bu baax a baax ci liggéey bi nag quoi mais du dimbali boo xamante ne comme nga ñëw fekk benn jeune bu bëgg dara nga jàppale ko dimbali boobu quoi te pourtant fii nii Sénégal bëri na da nekk si benn koñ nga gis kenn koo xamante ne tane na la junni yoon mu ñëw xool benn booy mu xam ne booy bi tey jii su ma ko dimbalee mu dem mais du la dimbali day bàyyi ba nga am jafe-jafe jafe-jafe woowu soo ko ñëwee wax mu dimbali la ñun liggéey bi amuñu ci dara amuguñ ci dara amuñu machine suñuy forme quelque forme rek lañu yoon mais nag ñun ñaan nañ yàlla si sunu sunu sunu gëm-gëmu bopp ñaan nañ yàlla nag si sunu gëm-gëmu bopp lépp lépp li nga xamante ne ko rëññee uude maanaam ci jëmu boppam ci atelier am da koy am ñun ñaan nañ yàlla amal ko su sunu alal parce que demuñu si kenn ne ko dimbali ñu te pourtant ñun am nañ ñoo xamante ne war nañu mën a dimbali mais duñu ko def de duñu ko def dañuy bàyyi nag ba nga nekk si benn jafe-jafe te jafe-jafe googu yàlla bu ñu si yàlla bu ñu si gis parce que jafe-jafe mooy mooy maanaam lan da nekk da nekk sax nga toog deux jours liggéey ñu ne amoo liggéey deux jours nga toog liggéey ne amoo liggéey Sénégal même bu dee da ngay liggéey bureau sax des fois nga toog jour yoo xamante ne liggéey du am loolu fépp waaw kon nag ñun dañuy ñaan yàlla dajanteeg ñoo xamante ne ñu ñu mën a jàppale carrément parce que koy jàppale man tey ku ma doon man tey ku ma dégg nag. bëgg ma jàppale man alu jeune ko rëñee man ku ma dégg bëgg ma jàppale bu ma jàppalee xaalis boo may jàppale woo ma ba ma ñëw ne ma alu yan forme nga bëgg yan façon machine nga bëgg mën na la yii nga jëndal ma ko parce que loolu boo ma ko jëndalee am naa li ma bëgg am xam nga dañuy naan entreprise u Oudé Sénégal fii nii ah man gisuguma ko fi nga créé benn entreprise boo xamante ne ay uude rek ñoo fay dajaloo di liggéey ñuy produire ay dàll di dem gisuguma ko fii xëy na nag bu fi amee man de ah gisuma ko walla jëluñu moom man damay damay damay ñaan yàlla boo ko si coordonné yi nga xamante ne dañuy gën a yëkkati liggéey bi parce que liggéey bi billaahi ku ko fonk mu teral la ñun lekk guñ ci dara mais gis nañ gis nañ nag lekk guñ ci dara nag mais gis nañ fi ñu teg suñu tànk ci liggéey bi buñ ko teggiwul loolu noonu entreprise yooyu noonu ngay wax day taxaw parce que métier bi moo nekk métier boo xamante ne tey jii mooy li ma la doon wax sànq mun nga toog deux jours banque mais mun nga toog une semaine boo xamante ne bu neexee mun nga laal plus de cinq cent mille su neexee nag lépp ci gëm sa bopp. lépp si gëm nag sa bopp la parce que lu waay di def te gëmoo sa bopp doo dem man saa yu ma xëyee man dong sama loxo damay génne quinze paires daalu góor te day metti de mais dama gëm ni su ma xëyee daal day pare. d'accord dégg nañu waxtaan bi ñëw sekk suñu suñu frère Alou Alou Ndiaye depuis Médina. donc ñu ko doon wax aloo kàddu yi rafet na kàddu yi rafet na alu boo ko déggee muy wax nga xam ne ku bëgg li muy def la ku am ku am ku am passion ci li muy def la bëgg na li muy def gëm na boppam te mu ngi séentu boppam fu kawe kawe kawe kawe kawe ñu ngi ñaan yàlla jeune la borom karaw bu ñuul la mu àggaleek sa goom alu lan mooy sa mot de la fin alu boo amee koo sant santal boo amee koo gërëm gërëma waa damay sant nag koo xamante ne chaque jour dañ koy sant mooy sunu pap sam pap chaque jour dañ koy sant parce que tey jii bu amoon moom tey jii bu amoon heure bi ñun kawe nañ fi tey moom bu amoon ñun heure bi kawe nañ fi parce que dañuy jàppale bu baax a baax bu baax baax a baax a baax fii bañ fi tijjee bërëj wallaahi demuñu si kenn pour mu ñaanal ñu demuñu si sëriñ demuñu si yaa man mu ñaanal ñu sunu pap moo fi ñëw taxaw ba fii ñaanal ñu dem yoram te métier bi li ma ci njëkk wàccaale te métier bi lu tax ma séntu ci lu bari bëri bëri bëri bëri dafa am fu ma ko teg dama am fu ma ko teg nag bu baax bu ma yàlla maye nag gudd fan bi ak wér bi parce que li ma njëkk a wàccaale bi ma duggee ci uude li ma njëkk a wàccaale mooy 700 yu ma wàccaale xaw ma 500 yu ma wàccaale sama loxo papa laa ko njëkk a teg ñu toog si sijaara billaahi wallaahi taalaay ñëw jox ko ne ko papa ñaanal ma alxuraan mu yëkkati dara jël ko yëkkati lenn li téye jox ma kon métier bi. su ma ko gëmee ah wallaahi fii laa la ko waxee bu dee li nekk ci man deñagul barki alxuraanu karim di ma fekk fu gën a macha allah bu dee li ma li ma gëm dañu te ñaanu ma ko nag yàlla ñaan ma ko yàlla li ma gëm gëm-gëm bi ma am di ko tëddee di ko nelawaaye maa ngi ñaan yàlla loolu fekk si ma parce que dama koy tëddaale di ko yeewuwaale liggéey bi li ma gëm parce que yàlla jubóo jubóole na ma ak sama frère ñu bokk benn liggéey te li ñuy def nii dafa neex ñu bëri dañu si ñee ci lii. duo bi nii dafa neex kon tey jii tuuti gëm-gëm dañuy dem suñu yoon sans autant nit jàppale ñu parce que jàppale weesuwur nañ nit boo bëggee ñu jàppale yow jàppaleel sa bopp ba pare tey boo jàppalee tey jii sa bopp ba pare. après leneen ni day yomb di ñaan nag di ñaan nag yàlla nag bu baax a baax yàlla dimbali ñu lafal ñu cat dàqal ñu lépp lu bon loo xamante ne dafa war a nekk suñu kanam yàlla puusal ñu ko te lépp nag lu ñuy séntu ci liggéey bi ci lu baax yàlla may ñu ko lépp li nga xamante ne ñun dund ñu ko woon lu neex ci liggéey bi yàlla may ñu ko parce que métier bi dañ ko tarbiyu dañoo sonnoon nag ci métier bi billaahi wallaahi taalaay fii amul benn jeune bu la nee jàng naa métier dix ans koo dégg bu la neexee nag nga wër jeunes yi ngay dégg ñu nekk sa classe man quatre-vingt-onze ans aw ma sax trente ans te jàng naa 2008 laa ci dugg ba 2018. su ma ci lekkee ba may jàng métier bu ma ci lekkee trente mille francs damaa yeewu cinq heures du matin pour mën a dem liggéey daal la yooyu su ma téyee cent mille francs bu mat ci bi ma beroo la kon mun naa ne dix ans yi ma def ci métier bi téyewu ma cent mille yu mat ci liggéey bi dix ans yi ma def ci métier bi téyewu ma ci cent mille francs yu mat ci liggéey bi bi ma ko téye bi ma toogee war a liggéeyal sama bopp laa compté sama xaalis mu ëpp cent mille mais lépp dama gëmoon sama bopp man dama mës a gëm sama bopp teel a jël sama yoonu bopp man dama mës a gëm sama lenn dama ko gëm gëm sama bopp dama ko def ba mu jeex tàq tàq tàq tàq tàq teel a jël sama yoonu bopp teeloon génn sunu kër dem lu ji nekk te maa ngi apprenti wu di wàcc di am 1000 francs xëcc sama frère sama wet di dem fay ji néeg gëm sama bopp moo taxoon loolu yegg te pourtant dama doon wàcc am mille francs 1500 mais ci laa doon dund ci laa doon lekk ci laa doon nan ci laa doon fajee samay soxla ci cent yooyu wala 2000 francs des fois ma dajante ku mel ni yow ma commande ma 15 paires yëkkati dara jox ma. soo ma joxee avance quarante mille ma jël vingt mille franc yi préparé ko sama location vingt mille yi ma téye ko mais su ma neexee ne moment yi sama location mun naa ko liggéey benn jour su ma neexee ne su neexee tey mun naa liggéey sama location benn jour kon yàlla instant mu mi ngi ciy defaral sutura yàlla mi ngi ciy defal xéwal ba ku ñu gis suñu morom bu ñu gis yaakaar na ñi ngeeg loolu te yoruñu ko de. Eh, waaw ñi ngi siy sant nag bu baax a baax. parce que mooy li ma la wax rek liggéey bi boo ko bëggee da lay fekk si man damay tiim dàll bu ma defaru man sama jëm bopp mais su ma ko tiimee wallaahi ba war ko defar dàll bi day mel ni dañ ko indi sama kanam parce que bëgg bi moo koy bëgg moo may wiisi taman xaw ma dara de ñu ma dàq liggéey ngi fii am na kuréel ñu ma dàq liggéey junni yoon li ñuy liggéey du ma ko sax liggéey mais man gëm sama bopp tout le temps laay demee tout le temps moom laay demee di ñaan nag di ñaanal nag sunu papa yàlla may ko gudd fan ak wér ñu ngi jàppale nag bu baax a jàppale wu ñu xaalis parce que jàppale nekkul xaalis mais jàppale bi maa maanaam mi ngi ñuy def sunu bopp euh, ci loo xamante ne pour ëllëg. ay responsable daal man dama teel nekk responsable bi may jàng métier laa commencé. di bàyyi suñu kër dara ñu koy toggaale te boobu yoruma dara ba tey jii nii yàlla tey jii si su ma neexee ma xëy ne mun naa joxe cinq mille francs li ñu lekk mais dama ko teel a dama ko teel a def sama xol dama ko teel a def fii nii waaw parce que liggéey bi bi ma ci bi ma bi ma bi ma ci bi ma ko duggee bi ma ci duggee laa ko bëgg. parce que jamono yooyu sama patron doon ñawal ay tëni léegi dama doon bëgg pour nit ñi xam ne damay liggéey damay jël col bi di ko takkal samay tëni pour nit ñi di xam ne ne man ku rëñee laa ku ma gis mu naan ma yow xanaa uure ngay liggéey mu ne leen waaw sama tëni dama ko doon yendoo bu guddi. bëgg bës la woon wala bëgg xoolal. mais man dama bëggoon liggéey bi liggéey bi man maanaam dama ko bëgg. da ko doon dund ba takk kol. waaw doomu Anta Seck ak doomu Pa Nogay Silla moo ma jàngal métier dama koy ñaanal yàlla moom gudd fan ak wér parce que lépp moom la lépp yàlla ak moom la teg na ma ci yoon jàngal na ma métier loo xamante ne ba ba may dee du deñ kon moom tey dama koy ñaanal yàlla moom tout le temps dama koy ñaanal yàlla yàlla na ay yàlla yàlla na yàlla yokk ay xéwalam parce que nit ki la jàngal métier te fayoo kooku amoo payam koy ñaanal yàlla nag moom nag lépp lu mu bëgg si atelier am yàlla may ko ko mu nekk nag jeune tamit moom tamit bu bëgg liggéeyam jeune la xale bu ndaw macha allah gëmul dara tamit lu dul liggéey bi te képp ku mu jàngal métier boo génnee loo bëgg am ci dàll di nga ko am. wax dëgg fa neex yàlla parce que foofu métier moo fa am amul métier ndu de ñëw comme benn kubu daal rek ñu ko fay liggéey dix ans déedéet foofu da ngay liggéey marakis da ngay liggéey daalu góor da ngay liggéey sabo da ngay liggéey décolleté da liggéey lépp mbay si la atelier am lépp macha allah forme yoo bëgg da ngeen ko fay fekk atelier mbay si la di ko ñaanal nag yàlla yàlla dimbali ko yàlla wéral ko yàlla jàppale ko parce que yàlla ak moom la ci loxoom laa jaar te tamit yéen ñi tamit dama leen di ñaan dama leen di ñaanal yàlla yàlla yokk seen liggéey parce que man nee naa la lii pour la première fois lii ma koy def tey ji boo ma laajee tey ñaari jour tey ji yi la gën a neex tey dama lii dama ko naan jour bu may takk jabar ak jour bu ma amee doom ak jour bi ngeen xamante ne yéen ñëw ngeen ma fekk si lii kon tey jii lii man def instant yi nii lii li ngeen def nii daf may gën a may gën a yóbbu beneen niveau boo xamante ne ci liggéey bi loo xamante ne ñëwagul mais mu ngi sama kanam te di ñaan yàlla di ngeen ñëwaat nag te incha allah du soobee yàlla di ngeen ñëwaat te boo leen ñëwaat di ngeen xam ne jeune bu bëgg lu muy def jeune bu. bëgg boppam te man pourtant damay dégg ni ah, damay dégg comme tey jii ñu ne am na ministère yoo xamante ne dañuy jàppale dañuy jàppale maanaam nit ñi daal mais pour nan ñoom mënuñu wàcc si cordonnier yi di xool tey jii comme tey jii suñu maire Médina bi nii Bamba Fall tey jii dama koy cité ma Bamba Fall tey jii man dama koy dama koy dénk benn affaire Bamba Fall moom dama bëgg moom mu wàcc sur le terrain Bamba Fall mi ngi liggéey liggéey bu doy waar ci Médina barke alxuraan ñun bañ dalee am maire ba léegi maire bu mel ni Bamba Fall ah su ñun luñ jot a fekkee lim fii def rafet na macha allah mais dama koy ñaan yàlla man alu te damaa bëgg nag mu dégg ma Bamba ak Cheikh ba mi nekk Médina damaa bëgg nag lii ñu dégg ma damaa bëgg ñu wàcc ñu jàppale jeune cordonnier yi nekk Médina parce que ñun ay doomu lañ fii lañ jëkk fii lañ juddoo fii lañ yoroo maa bëgg nag Bamba Fall loolu ñaanuñu ko nag neewuñu ko mu may ñu xaalis seex ba tamit ñoom Medina lañ dëkk neewuñu leen ñu may ñu xaalis mais xamal la leen ñaan ñu jàppale ñu ñu kawel sunu mbaar bi nii mbaar bi nii ñu kaweel ko utal ñu ay machine utal ñu ay forme Bamba Fall ak Cheikh Ba parce que ñun ay doomu Medina lañ man alu maay président supporter ay see Guissalane fii maay président supporter bi ñëpp ma xam foo nee alu ñëpp xam nañ ko kon Bamba Fall dama koy jox loolu mu jàppale jeune cordonnier yu nekk bépp jeune cordonnier nag mu nekk biir Medina parce que loolu il faut ñu créer ko mun na am après ay jeune cordonnier yu dëkk Pikine mun na am ay jeunes cordonniers yu dëkk géejuwaay ñu ñuy defal ay comme gars yi ni ñuy defee ay kii bi championnat bi ay football mais pourtant tamit war na mën a am si cordonnier bi loolu lu mën a nekk la. ay dîner de gala nii ay vente aux enchères nii lépp mën na nekk lépp mën na nekk ay projet la Bamba wàccal wàccal jeunes yaa ngi bëgg wax ak yow. Bamba dama bëgg loolu nga jàppale ñu si man alu waaw maay wax ak yow. nga jàppale ñu ñun jeune cordonnier yu nekk biir Médina nga jàppale ñu bu baax a baax a baax ba ñun ñu gis suñu bopp ñun bés boo ñuy jàppale bu ñu jàppalee xaalis boo ñuy jàppale jëndal ñu ay machine ay forme ah ay maanaam lépp luy jëm loo xamante ne lii si xeetum dàll lay dem matériel nga jàppale ñu si bu ñu jàppalee mukk ak xaalis jàppale ñu matériel te war nañ mën a créer itam loolu biir Pikine ak Géejawaay nag muy am ay jongante sax ñu ne tey ah cornier yi nekk Médina ak cornier yi nekk pikin la ñuy xool kan moo ban tendance instant yi moo gën a tege parce que Pikine am na ay jeunes yu mel ni man waay am na ay jeunes yu mel ni man seen mairie yi nag nañ génn jàppale boo yooyu man Bamba Fall dama bëgg loolu nga njëkkee ko ci biir Médina ci biir Médina am na ASC yi fii yëpp am na ASC Ndiathiar am na ASC PD am na ASC Guy Salaat mais ASC Cordonnier Bamba Fall moo ko war a créer fii jàppale Cordonnier yëpp mi ngi def def liggéeyam de dëgg fa neexee yàlla Bamba Fall moom gàcce ngaalaam yàlla na yàlla yokk gudd fanam yàlla na yàlla yokk wéram Médina moom dëgg fa neex yàlla mu ngi ciy def loo xamante ne macha allah dëgg fa neex yàlla di nga ñaanal yàlla moom lépp lu mu bëgg. xëy na ñun nag ñoo amagul sens si moom mais am na ay nit yoo xamante ne chaque jour ñi ngi am sens ci moom am na ay nit yoo xamante ne chaque jour Bamba Fall ñi ngi am sens ci moom mu leen di dimbali xëy na nag ñun amaguñ sens boobu mais man dama koy dénk benn kàddu bés bu jotee sama message man alu na fexe man dinaa fexe xam fu mu nekk mais man tamit na fexe xam fi ma nekk ñu toog waxtaan mu dem ñu dimbali man loolu laay dénk Bamba léegi dañuy jox alu mu daal di ñuy jox numéro adresse am. numéro bi 77 la 122 81 57 fii rue 35 la angle 28 35 angle angle 26 rue 35 angle 26 fii lañ nekk dañuy liggéey daalu góor di liggéey daalu jigéen lépp lu xeetoog dàll dañ koy liggéey. te ragaluñu si dara nag waaw lépp lu xeetook dàll loo xamante ne daal maanaam ci dàll lay jëm ñun dañ koy liggéey. waaw sant nañ leen gërëm nañ leen di leen ñaanal yéen ñi parce que li ngeen di def nii yaakaar naa ne lii bés boo leen ci tegee seen tànk man alu nag maa ngi koy wax ak yéen bu leen yem ci man dong dugg leen Pikine ngeen xool jeune cordonnier yi ngeen jël leen. bu leen ci taay def leen ko émission bu bees boo xamante ne ngeen dugg Pikine dugg Géejawaay dugg fépp loolu day neex bés boo leen ko defee ko rëñee dañ ci gën a gis seen bopp ak surtout léegi xeetu daal lay am kon yéen boo leen ci wàccee def si terrain bi def ci seen liggéey ko rëñee yëpp dinañ ci gis seen bopp di leen nag sant nag bu baax a baax waaw di leen sant bu baax a baax a baax a baax baax baax waaw di gërëm di ñaanal yàlla tey moom dama kontaan moo dëgg fa neex yàlla lu mel nii tiim ma si sama liggéey ah kon damay gën a dolli sant gëm-gëm bi dama koy gën a yokk parce que nekk naa ci métier bi dix ans kenn mësuma tàllal micro naan ma waxal ci dàll lii wala waxal ci dàll laa kon tey jii su ma nekkee tey ji si Cordonnier bi ñëw ba fii yàlla fekk si mag ak micro kon damay dolli sant yàlla kon damay dolli kon man gëm naa ne ni sant bi dama koy gën a dolli parce que kuñ fekk sa fi nga nekk ci métier bi 10 ans caméra musu la filmer caméra bu sa bu la musee filmer ci ngénte la wala ci taq walla ci nawetaan nga rëy làmmiñ ñu filmer la ñu ñëw ba sa liggéeykaay teg la lii kon da ngay gën a sant di gën a nag dolli di gëna a nag gëm-gëm bi gàllaaju gëm-gëm bi di ko gën a tax parce nit gàllaajam lan la rek lenn la rek gëm sa bopp rek mooy gàllaaj gëm sa bopp rek mooy gàllaaj sa yaay bu la ñaanalee sa waajuru ñoom ñëpp ñaanal la utal morso bu mu dëgër takk sa ndigg morso boobu mooy lan morso gëm sa bopp bi ngay takk bu ko tekki mukk même bu seeree ba di la naj bu ko tekki parce que boo ko tekkee tekk nga sa musiba bu daggee nag jàppal na nag li ngay yóotu jot nga ci parce que daggaloo ko sa bopp di leen nag gërëm nag bu baax a baax di leen gën a sant sama frère bi nag moom mënul wax man maa koy waxal maay géwalam waaw loolu la yàlla def man maay géwalam moom it tamit sama frère bu ma déggal la bu ma jox cër la bu ma respecté la mën na ne alu dëgg la ay morom lañ moomam ak deux ans nii mais ay maas lañ su ma ko santee mun na ma ko ma damay toog ñàkk lu ma liggéey mu yor xaalis ma ne ko raq ñaata nga yor mu ne ma liggéey ma ne ko jox ma jënd matériel mu jàpp ci mu toog moom tamit jour ne ma alu ñaan nga yor ma ne ko lii mu jox ma jox ko mu jënd noonu lañ ko jàppee te yàlla nag ñu ngi siy suutural yàlla mu ñu siy defal jàmm bu baax a baax waaw loolu daal di ñaan yàlla tamit man damaa bëgg a créer sama famille loo xamante ne famille cordonnier man dama koy dama ko bëgg a créer parce que sunu sunu famille maa ci njëkk a liggéey cordonnier dugal ci sama rax indi ci sama beneen doomu mag tey ñëwul di ñaan yàlla nag sama taaw bu góor Tamsir nekk nag cordonnier waxuma la bëgguma mu nekk ministre li ñaan yàlla man bugguma mu nekk député damay ñaan yàlla mu nekk urée bi dàq liggéey senegal doon Neymar ci liggéey bi loolu laa koy ñaanal yàlla moo tax saa yu dama koy jox der ko yéel waaw loolu laay ñaan yàlla moom laay ñaanal yàlla moom moom mu nekk Neymar ci liggéey bi te yàlla dina ma ko defal bu soobee yàlla. suñu mbokk yi lii lañ fi indi woon tey. ñu indi fi tey un jeune cordonnier bu gëm boppam bëgg lu muy def xam fu muy teg tànkam ñu naan ko Alou fii ci Médina kontaanoon nañ trop ci dalal bi ñu dalal tey waxtaan ak ñun wax ñu ay projet wax ñu li mu bëgg ak fi mu bëgg yóbbu liggéey bi ñu koy ñaanal ci li mu nekk yàlla jàppale ko ci place bi muy mbaar mu tuddee mbaar ñu fekk ko ci ren bu dewee ne yàlla nañ ñëw fekk ko ci benn complexe bu baax am entrée salon boobaa incha allah ñu tegalaat leen ko nii rek incha allah wan leneen ni ni xale màgg na donc ma jox leen dig daje ba beneen yoon incha allah ci seen émission dynastie de la mode merci beaucoup